الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mboole mi sant day ñenn yàlla mi boroom mboole mi mindaafoon arrahman mooy boroom yërmaande di yërëm mboole mi jaamam arrahim mooy ki matale yërmaande ca jaamam ya ko déggal مالك يوم الدين موي بروم بسو فايبا اياك نعبد واياك نستعين يلا يورك لني لاني جامو تي يو رك اهدنا الصراط المستقيم يلا نجب اليون جبوه صراط الذين انعمت عليهم يون نيغا خامني خيوال ne xéewal nga ca ñoom غير المغضوب عليهم ولا الضالين مصفا نوك يون نيغا خامني دانيو ميري تي نيوم صفا نوك يون نيغا خامني دانيو رير مبكو صابي لا نيو تودي كوم لا نيو خون سانك موي الصلاه موي رقيه موي كافيه muy umul kitaab dañ koy tudde it sab'ul masaani juróom ñaar yi ñuy baamu la ko ubbi borom xam-xam yu wuuti nañ ci bismillahi rahmaani rahim la fatiha commencé am alhamdulillahi rabbil alamin la fatiha commencé wuute nañu ca donte ne la gën a bari ca ñoom نيلن الحمد لله رب العالمين لكم ما لول يت دنيا جسني سيني تكتل لوتي باري ممو بن باري بقنا تي ينتبه صلى الله عليه وسلم اربودان جيتي دادان مسلو يالله تسوف نيان يالله تسوف وخ بسم الله الرحمن الرحيم تسوف دوغو يكتي الحمد لله رب العالمين xadis boobu ñu jàngoon sànq sunu borom ne qasamtu salaata bayni wa bayna abdi mooy fatiha dama koo séddale sama diggante ak samay jaam bokk na li boroom xam-xam yi firee mooy alhamdulilahi rabbil alamin benn ngoog yàllaa ko moom ma ah, arrahmaanu rahim ñaara ngoog yàllaa ko moom maliki yawmi diin ñett ngoog ko moom bisi ci bi di iyyaka na'budu wa iyyaka nastain yàlla ak jambe ko bok ba ca tegu moy ihdinas siratal mustaqim di ben jambe ko mom siratal alladina anamta alayhim ñaara ngoog jambe ko mom ghayril moom غير المغضوب عليهم ولا الضالين jambe ko mom lolu taxna ba mo lañu borom xam xam d'accord nañ ci ne fatiha juróom-ñaari aaya la moo tax ba ñi ci boole bismillahi rahmaani rahim ñoom buñ jógee sirata allazina anamta alayhim duñ taxaw ba baa ñu yegg wala daalin waaye ña nga xam ne ñoo ne alhamdulillahi rabbil alamin la leen la la la commencé dañ leen ne loolu boo xoolee ci njànginu saar bi aaya bu mujj bi day double yeneen aaya kon lu jub mooy siraat alladina anamta alayhim loolu aaya la غير المغضوب alayhim wala الضالين نك بنين آية ak lu ci mën a am mbokk julit da ngay gis ne bismillahi mooy maa ngi tàmbalee ci turu yàlla sunu borom aw turam daa barkeel muy benn loo ko booleel mu barkeel te julit it dafa warul def lu dul lu ko yàlla digal julit looy def te mën a wax bismillah rek bàyyi ko looy def te mën a wax bismillah rek bàyyi ko ndax waroo def lu dul loolu yàlla digal ndax yàlla da laa fee indi pour nga jaamu ko moo tax yeneen ci alayhi salaam digaloon ñu kenn ci yéen buy jàpp la wax bismillah kenn ci yéen buy rey la wax bismillah lenn ci borom xam-xam yi sax ñu ne boo ko waxul mbir mi du du baaxati kenn ci yeen buy dugg ca wanag go na wax bismillah jàkka ja bismillah da ngay ànd ak sa soxna waxal bismillah da ngay summi sa yére waxal bismillah lu tax benn sunu borom loo ko booleel mu barkeel ci julit lépp lu muy def da ko war a def ak ndigalu borom bi subhanahu wa taala loolu yi mooy bismillah arrahman melokaanu borom bi la subhanahu wa taala mooy ki am yërmaande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla moo bind yërmaande xaaj ko téeméeri xaaj benn ba la jox ay jaamam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mi ngi ko dencal waa aljanna yàlla boole ñu sa ñooñu suñu borom boobu yërmaande googu moo ci ci kaw suuf moo tax ba lu way mën a def ci mbon du tax yàlla bañ la abadan bis boo tuubee rek yàlla baal nga bis boo tuubee rek yàlla baal la looloo tax ngeen jàng gaa ya lakkoon ay jaamam inna allazina fatanu almuminina wal muminat summa lam yatuubu tey bu ñu tuubul mooy wan leen bu tuubee yàlla baal yaa ngi jàngit abu jahal bam mu demee ci yonent bi alayhi salaam bundu xatal ko su julleetee ci kaaba gi danaa ko def lu bon wax a wax a wax borom ne fa in lam yantahi cay bu bàyyiwul li muy la nas fa am bi nasiya bu ko bàyyee nag bu ko bàyyee yàlla baal ko loolu mbokk mooy yërmandeem doonte ne allaaxira nag moom bu ñu fa demee yërmande ja da koy tëj ci biir ay jaamam yi ko déggaloon amul kenn ku muy yërëm allaaxira lu dul ña ko gëmoon ko arrahmaan rahim léegi bu dee d'accord nga ñu commencé ci fatiha ci alhamdulillah moo ko xamal ni kaddu bi gën a gu doomu aadama di wax ga gën a ci kaddu moom mooy alhamdulilahi rabbil alamin kaddu gi gën a matale ci kaddu kaddu gi gën mooy laa ilaha illallah firi yàlla rek la war a jaam waaye alhamdulilahi rabbil alamin day firi mooy sant yépp ñeel na yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindaa fan yépp nga dégg ci na yàlla mooy yàlla lépp luy mbindaafat moo ko bind lépp luy xéewalu àdduna ak àllaaxira ci moom la jóge te jaam yi amuñu lu dul xéewal googu ñu sant ci seen boroom loolu kon da ngay gis léppi diine léppi am-am léppi àdduna léppi àllaaxira dugg na ci alhamdulillahi rabbil alamin mboole mi sant ñeel na sunu boroom su mag ñi buñ ko daan firi dañ naan cant ñeent ñeel na yàlla cant yàlla yàlla subhaanahu wa taala dana sant ay jaamam loolu moom la ñeel moo bind jaam bi moo ko jox xéewal gam ko sante kon sant googu ñeel na yàlla yàlla jëkk a sant boppam alhamdulillahi fatiri samawati wal ard naam loolu it ñeel na ko moom subhaanahu wa taala moomu gis nañu ne jaamam yi daañ ko sant loole da ngay gis ne naa moo ko yeyoo jaama ngi li ñuy santante seen biir it moom mooy ka nga xam ne moo ko yeyoo heure boo la nit mayee mille francs nga sant ko sant gi yàlla la ñeel yàllaa def ñaar avant nga jot ci mille francs bi yàllaa ko may mille francs may ko xol bu bu mu la ko joxe am na ku ko ëppale foofu te joxula am déet am na ku la bëgg a jox ca amut kon yàllaa def ñaar nga doog caa jot looloo tax mbokk mboole mi xéewal dañ ko war a sant sunu borom subhanahu wa taala alhamdulilah rabbil alamin loolu nag julit da koo war a sax di wax ala kulli xaal fu mu mën a toll yonent bi alayhi salaam bu xéewal ma san ñëw ci moom danaan alhamdulilahi lazi bi nicmatihi tatimu salihat ñu sant yàlla mi nga xam ne ci xéewalam lay mate lépp lu baax waaye bu nattu ñëwee da nga war a sant yàlla loolu nag jaam yi néew ñoo fa yegg bu natt ñëwee nga ne alhamdulilah ala kulli xaal benn misaal yi ngi nii xoolal doom ni mu xool xol sunu borom bu yónnee malaaka yi ñu jël doomu benn ci ay jaamam daf naan jël ngeen sama doomu jaam bi ñu ne waaw jël ngeen fleuru xolam ñu ne waaw ah lu wax na ñu ne ko ah sunu borom xamidaka wastarjaa <clears throat> daf laa sant rek dellu ci yow alhamdulillah ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu de la wax sun borom nekkoon tabaxal leen ko ca aljanna baytul hamd kërug cant gi loolu moo tax ba yow julit del sant yàlla ci xéewalam del sant yàlla ci nattoom ndax natt bi kat mën na am dal sa kaw fekk ne bunti xéewal yu bari bari la natt bi di àndal loolu ku ne gis na ko ba tàyyi xoolal xadir ba mu dajeeg benn doom rey ko Moussa ne ko indi nga lu bon lu yées shay an nukra ba mu ko koy firil dana ko kii maa ko rey ndax ay waajuram bu ñu muñee sant yàlla dana leen yónnee beneen doom boo xam ne xayram xayran minhu wa aqrabu rahma moo koy gën gën koo ëpp njëriñ ñi demandé loolu it ñu day dem ci service rek ñu dàq ko mu ne xii àdduna tukki na fekk yàlla ñu koy dencal loo xam ne tant que dàq ñu ko ci service bi du ci jot ñu ngi noonu sa jabar ja tas na am lu la lool fekk ne yàlla nga ni dencoon soxna soo xam ne bu kii tasul woon kenn du ñëw wala bu kii déewul woon kenn du ñëw jëkkër ji it jëkkër ji benn àdduna tukki la suñu borom fekk ne mi ngi lay dencal beneen jëkkër boo xam ne moo gën dina nekkaloon loolu moo tax ba jullit moom lu ko mën a dal day wax alhamdulilahi rabbil alamin te it nga gëm ne rabbil alamin la ñuy firi mooy keneen ku dul yàlla jaamu yàlla la malaaka la jinne la yeneen ca la ku mu mën a doon maadaama doo rek jaamu yàlla kese nga mën a boo xam ne dangaa soxlaal yàlla subhanahu wa taala mënuloo kenn dara alhamdulilahi rabil alamin su dee dañoo jàpp basmala dafa bokk ci fatiha ak ak répétition lay doon su dee jàppuñu ko dañuy gis ne sunu borom ma ngay xamal ne rabbul alamin boobu mooy arrahmanu rahim muy borom yërëmaande ji nga xam ne mooy ci matale lépp mi ngi noonu mooy ki matal lépp te mbokk dañ naan turu yàlla yépp al asma asmaul husna mi ngi dellu ci ñett allah ar rabb ar rahman allah mooy firi al uluhiya yàlla rek lañu war a jaamu ar rabb mooy tawxidu rububiya wane ne yàlla rek mooy ki moom mooy al xaaliq almalik almudabbir moo bind lépp moom lépp di taxawe lépp kooku mooy arab ñu noonu moo bind lépp moom lépp taxawe lépp mooy arab beneen bi mooy arrahman mboolem melokaanu yàlla yi turam yéeg yépp mi ngi dugg ci biir rahman mooy ki nga xam ne soxlaalul kenn dara ñépp ko soxlaal yërmaan dem di mu yiir ko mboolemi jaamam mboolemi asmaul xusna yi nga xam ne yonent bi alei salaam nee na ku ci mokkal juróom-ñeent fukk juróom-ñeent àddina nga jëm ca la mu doon yàlla rek ko xam am na yu ci yàlla xamle am na yu mu ci xamal ay yonentam am yu mu ci denc lépp mi ngi dellu ci allah arrab arrahman alhamdulillah rabbu rabbul alamin arrahman arrahim mu nekk ci ah ñett yooyu nga xam ni ñetti aaya yooyu tegaloo sunu borom subhanahu wa taala ne mooy maliki yawmi din mooy boroom bi sa fay ba bu dee da ngaa yor warsh nga jàng maliki yawmi diin mooy bóoru bi sa fayba ba ma magi wala fi ñoom dañ ko far tënk rek yàllaay buur di boroom am déet soo jàngee malik mooy buur malik mooy boroom yàllaay buur di boroom tey na mu nekk buuru bis pénc te xam ngeen buur mooy ki nga xam ne lu ko neex mu nekk boroom bis pénc ki nga xam ne lu ko neex def waaye mbokk mooy lan bisu fayba kon ndekete man kat bisu gën a danaa fàttali sama bopp juróom fukki yoon ak juróom ñaar ne am ne bis ngi ñëw sama kanam buñ ma nar a fay say jëf ah gaa yi war nañoo góorgóorlu rafetal jëf yi de yàlla yaay boroom bisu fayba kon xam nga ne di bisu leble di bisu sarxe di bisu abb mooy bisuñu fay la say jëf malik yow mi diin yàlla yow ñii nga xam ne nag yaa bind lépp yaa moom lépp yow mi nga xam ne yaa yërëm jaam yëpp yow mi nga xam ne alaxira bu ñu fa dajee yaay buur di borom man de yàlla wala boog ñun de yàlla iyaaka naabudu yow dong la ñuy jaamu gis nga yow dong la ñuy jaamu iyaaka naabudu yow dong la ñuy jaamu mbokk li mooy dàq bépp shirk li mooy dàq bépp shirk yàlla iyaaka naabudu yow rek la ñuy jaamu waaye it iyaaka nastainu yow rek la ñuy dimbali ko duñu jàq mukk ba ne yàlla ak diw abadan yow la ñuy yaakaar adduna yow la ñuy yaakaar alaxira na naabudu wa iyaaka nastain boroom xam-xam yi dañ ne diine ba mu jeex génnul ñaari baat yi diine ba mu jeex génnul ñaari baat yi iyaaka naabudu yàlla yow rek la ñu fas yéene jaamu iyaaka nastain yow la ñuy dimbali ko te moy xamal ñu ko jàppale ñu ci ban taxaw ci loolu tax mboolem lislaam ba mu jeex takk tak ñu ngi dugg ci fatiha mboolem fatiha ba mu jeex tak génnul iyaaka naabudu wa iyaaka nastain képp ko comprendre iyaaka naabudu wa iyaaka nastain rek sa dina dana rafet da lay leer ni yàlla nga war a jaamu te dalay leer na war ngaa def effort ñeen yàlla mu dimbali la ndax kii dimbali ko dafay def effort gis ngeen iyaaka naabudu wa iyaaka nastain loolu mbokk moo tax jullit du sàkku ndimbinu ko ci keneen ku dul yàlla allahuma lu dul loo xam ni waa ji daa teew ca mën na ko kii teew ca man day mu naan na ko sëñ diw jottali ma téere bii ñu ngi noonu waaye su ma toogoon fii sëriñ ba dee woon ca Podor ma naan yaa Cheikh diw jottali ma téere bii maa ngi koy bokkaale ndax maa ngi koy jox melokaanu yàlla maa ngi koy jox am na kàttan fa mu nekk di ma dégg am na kattan fa nekk indi kattanam te loolu yàlla rek ko ko am loolu kon mii mbir boo xam ne dañ cee war a bàyyi xel sa oto di këpp nga ne yaa cheikh diw ma faatu woon daw jéeg wala faatu woon feeg téeméeri at yaa ngi koy bokkaale ak sa borom iyaaka naabudu wa iyaaka nastain léegi nag yàlla iyaaka nastain ah yow li ñuy dimbali ko lan mooy li gën a màgg lu ñu yàlla war a dimbale mooy ihdina sirata mustaqim yàlla teg ñu ci yoon bi bu la yàlla dimbali nga am un euh, présidence jiitam yaa yàlla dimbali nga boole cay milliards yàlla dimbali nga am cinquante neuf femmes am quatre vingt dix doomi médecin ki ingénieur lii nga am ko ca amoo siraatal mustaqim ñàkk nga àdduna ak alaxira am déet amma as-siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim soo ko amee cay tëdd ñax da gis ne am nga àdduna am nga mustaqim الصراط ما يون بطل بو خامني امول لونك لونك امول امول فخ امول دار ما يون بيغا خاني يون بو جيب بلا ما تخ صراط المستقيم نغي وول بو تكو دادي بريسيزي غنا ليرال ني يالا يون اوي واخ ما يون نيغا خامني دا نغي لينا گرم ني يالا گرم موي يونتي اخ ني لين دگلون اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء mooy ña nga xam ne ñooy yonent ya ak siddiqi ne ak ña dee ci yoonu yàlla yoon woo nga xam ne boo ci jaaree direct ma nga jëm ci yàlla direct ma nga jëm ci aljanna mooy ñaan gi gën a màgg gu nit di ñaan ci kaw suuf yàlla may ma doom may ma kër yàlla may ma lu mën a doon la gën a lu ñuy ñaan ci kaw suuf mooy ihdina sirata mustaqim yàlla teg na ci yoonu njub bi mi noonu yoonu ña nga xam ne gërëm nga leen te mbokk ñooñu mooy sahabatul kiram ñooñu ñooy ñu wërani yonent bi yàlla gërëm leen képp ku bëgg a jaamoo yàlla sa jaamu yàlla safaanoog seen jaamu yàlla rek jàdd nga ci mbooy gi jàdd nga ci mbooy gi ñoom ñooy al muminin te sunu borom di wax naan wa man yushaqiq rasula min ba'di ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi ghayra sabili lmuminin ku wuuteeg yonent bi gannaaw ba la njub gi leere nga jaar yoon bu dul yoonu julit ñi jamono boobu ñu doon jullit ñoo ñu wëroon yonent bi sahabatul kiram ñooñu ñooy sëriñ sa ñooy reyukaay ya ñooy àndandoo ya ku ànd ak ñoom ëllëg da nga texe sirat alladina anamta alayhim gannaaw loolu it jullit da ngaa war a xam ne àdduna ñetti yoon fi nekk yoonu ña nga xamee ni nii dañoo jaar ci yoonu yàlla fekk ne dañ koo xam ba pare jaar ci xam nañ ko jaar nañ ca loolu it muy wane ne ihdina siraatal mustaqim ku koy ñaan war nga caa boole jàng ndax jàng mooy yoon wo jàng nañ yoon wi xam nañ ko ña koy jëfe mu am na li ñuy tudde al maxdubi alayhim mooy ñan mooy ñi nga xam ne xam nañ yoon wi ba faral lànk bañ caa jaar ee eh, noonu xam nañ yoon wi ba faral lànk bañ caa jaar loolu yonent bi da ko daan mandargaal ne mooy yahud yi kenn gën leen rëy bopp ci xam-xam xam nañ diine l'islam comprendre ko dañoo lànk bañ caa jaar waaye ku jaar seen yoon rek jaar nga yoonu yahut mooy ustaas yu say-say yi jàng nga jàng alquran xam nga dem nga université yi def yëpp waaye boo ñëwee nekkub ceddo da nga réer réer a laate ñooñu ñooy al maxdubi alayhim mu am nag lu ñu tuddee wala dooliin mooy ñan mooy yeneen fi di daan wax mooy nasaraan yi foo leen fekk ñi ngi seen église yi du àdduna du ñu sëy du ñu kasa du ñu kasa fekk ne dañoo réer yoon wa ñu waroon a jaar jaaruñu ca loolu it mi ngi wone ni tey am na ñoo xam ne li ñuy daj ci diine mën nam sax saxaaba yi sax dajuñu ko woon da nga takk seen ndigg bàyyi seen kër bàyyi bàyyi seen kër yaay gàddu ay illéer ki gopp dénkoom dugg ci tool sëriñ si di bay doo julli doo woor loo am jox ko jox ko sa bopp jox ko sa njaboot jox ko sa nangam mbokk loolu da gis ne fekk yo la la yàlla santoon bàyyi nga ko dem ci sa moroomu nit di ko defal ay ndigalam sa jàpp nga ne da nga cee am yàlla loolu mbokk musiba mënu koo paase di nga noonu imaamu Njaay bi nekk fi benn nettali na benn mbay tool bu mosoon a fekke benn borom tool ba am mbooloo mu fa ñëwoon di ko bayal tool bi bam baye ba pare mu ne len yalla len yalla fay way ñu ne ko yàlla man gis ngeen ah <laughs> na yàlla bind asma rasul mu ne de da nga naan yàlla na leen bir señ do fay ñun kooku moy suñu yalla ci dañu japp ne kooku ñu ko top ngir yalla gis ngeen lolu moy mbokk ab daalil sonn ngi lol ci dina yalla bi waye lañu sonni fofu du yoon wa li mbokk moy li nga xamne so taxawé di julli sa borom yalla mi ngi jakarlo ak yow sa borom yalla mi ngi lay deglu suñu yonent alayhi salaam nee na yàlla lépp lay dégg waaye dégluwul lu mel ne alquran mi ngi noonu yàlla lépp lay déglu lépp lay dégg waaye dégluwul lu mel ne alquran su ko defee boo jàng alquran mi ngi lay déglu soo nee alhamdulilahi rabbil alamin mboole ñu sant ñel na yàlla suñu borom ne malaaka yi dégg ngeen de sama jaam bi day mi ngi sant arrahman arrahim yaay borom yërmande ji da koy matale ci jullit ñi mu ne dégg ngeen de sama jàmm bi de may tagg nga ne maliki yawmi diin yàlla yaay bi sa fay ba yi dégg ngeen de sama jàmm bi de mi ngi may màggal mooy xamadi xam xamadani abdi asna alayya abdi majjadani abdi sama jàmm baa ngi may màggal de su ko defee jàmm bi ne yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yow dong la ñuy jaamu loolu it ne jaamu yàlla mbokk da nga koy ànd ak moo tax booy tari faatiha doo wax yàlla yow lay jaamu da naan yow la ñuy jaamu ñu ngi noonu yow la jaamu ñu ngi noonu iyaaka naabudu yow rek la ñuy jaamu de yàlla te yow rek la ñuy dimbali ko mu ne malaaka yi haza bayni wa bayna abdi jaam bi nee na man lay jaamu te man lay dimbali ko man naa yeyoo jaamu moo yeyoo ma dimbali ko jaam bii de lu ma ñaan danaa ko ko may bu ko defee nga ñaan ko ñaan gi gën ci ñaan yi yàlla yàlla nañu jubal ci yoon wu jëb yoon ñi nga xam ne da nga leen a gërëm yàlla na ñu musal ci yoonu yu ya ya, ya ñu mere nga xam ne da nga màggal yàlla ba waxoo sax yàlla ña nga mere da nga ne ñu mere ñu ngi noonu ama xiiwal da nga koo jagleel yàlla anaam te yàlla yaa ko def amaa ñu rek dañ leen a mere wala dalil yàlla yàlla ñu musal ci ñooñu su ko defee ma suñu borom ne malaaka yi sama jaam bi ñaan na ma may naa ko lim ma ñaan te loolu mbokk mooy jàmbal jàmm ba nga xam ne la muy wax gëm na ko xam na ko ca biir xolam la jóge ku mel noonu yàlla subhanahu wa taala da koy may loolu lii bëgg nañu bu la fekkoon ci julli wala ci lu mën a doon nga daal di ne amin daal di ne amin amin mooy yàlla yàlla na nga nangu yeneen ci bi alayhi salaam ni ku topp ci gannaaw imaam imaam jàng ba pare nga ne amin yàlla bàll mboolemu bakar yi nga jiitaloon borom xam-xam yi am uute ki ànd ci gannaaw imam day jàng fatiha am du ko jàng wuute nañ ci waaye la xel faral mooy jarul muy jàng fatiha te loolu borom xam-xam yi gën a mag loolu lañ wax ibnu mee loolu la wax cheikh nasruddin albani ki nga xam ne ci ñi gën a xam xadis da ngay xam ne loolu la wax imaamu malikin rahmahullah loolu la wax mooy su dee yaa ngi jàng ci gannaaw imam imaam di wax ca kaw jarul ngay jàng déglu ko bu pare nga na amin mel na jàng nga soo déggul li imaam di wax nag su ba bàyyoo nga jàng ndax imaam ñun ñëpp lay waxal ñu ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel te lañ buy jàng fatiha ba pare na teg pour bàyyi mbooloo mi jàng fatiha loolu yonent bi mus sa jullee noonu yonent bi ñaari noppi daan def bu kàbbaree noppi ñaan su jàngee ba pare dal tuuti doo ko wax allahu akbar doonte ne loolu ay ixtilaaf la waaye la gën a not mbokk mooy li ma leen wax mbokk lii ab tënk la ci fatiha nee naa la Ibnul Qayyim def na ci ñetti volume yoo xam ne bu na jege na cinq cent page mënoon nañu suñu bisu tay bi ba baa bis bi dellu sot ci déwén duñ jàng duñ génn fatihatul kitaab waaye daan ci doyloo loolu la ca ëpp njëriñ yàlla yàlla wërsëgal ñu xam ko ci jëfe ko